tey bi ñu tollee ci euh, publier liste sous présélection équipe nationale góor ñi nga xam ne dañuy door seen préparation normalement de 20 war a dem benn tournoi en Chine du 2 au 6 ñu leen invité foofu jóge foofu dem directement au Nigéria pour jouer le tournoi pré-Tekio euh, entraîneur national bi de Sagana ak euh, assistant bi Babi Gueye ma ciy profité di félicité pa bi ah d'une manière très sincère ci liggéey bi mu def à la Bassirou African League euh, defe naa récompense distinction bi mu am euh, du pour moom rek ah suñu distinction ñu ñëpp entraîneur sénégalais yi euh, donc ak Amadou Mbodj ñoom taxaw nañ liste boo xam ne bu ngeen ko seetlee ancienne ñu ngi ci mais y a de jeunes yoo xam ne indi nañ leen pour élargir un peu le la base de travail bon équipe U25 bi muy mayon boo xam ne dafa ñu amal solo lool ndax euh, assurer un peu la relève de l'équipe féminine dafa doon suñu objectif à moyen terme pour ne pas dire à court terme boo seetee ci équipe senior bi senior fii bi dem euh, les quatorze là beaucoup xale yi ñoo ci ëpp léegi mag ñi te loolu moo doon suñu suñu mbëbët depuis depuis il y a deux ans ba ma waxee ne le rajeunissement bi c'est un processus boo xam ne c'est irréversible kenn mënu dellu ginnaaw. même si Aya Fatou Dieng sont revenus en appoint mais beaucoup d'anciennes aussi sont parties ba nga xam ne léegi xale yi ñoo ñoo jël euh, champ bi euh, may rafetlu un peu opportunité bi ñu am pour dem participer aux Jeux de la francophonie euh, yi boo seetee équipe u bi ñu ci nekk bitim réew bëriwul ñu ci ëpp championnat local bi nekk mais suba ñooy ñooy demit bitim réew loolu mooy indi souvent bu ñuy tànn tamit ñuy tànn ñi nekk ci biti parce que toujours les meilleurs ñooy dem. ma leen di ñaanal aussi ñoom tamit ñoom opportunité yooyu dem euh, moyen seen talent un euh, dans le monde donc euh, loolu laa amoon lu ma ci wax di wax ne liste équipe A bi dañ ko wàññee ba quatorze choses ñoo xam ne suba ñu continuer liggéey bi tournoi bi ñu war a dem Kansas City dañ ko mujj dañ ko mën a teggi parce que promoteur bi dafa changé un peu le le timing décalé ko ba mois d'août te ñu loolu arrangé wuñu donc on a perdu ce tournoi et à la place euh, fédération nous a trouvé deux matchs amicaux à, à Kigali contre l'Égypte et le Rwanda le 25 et le 23 euh, donc dinañ dem incha allah rabi dinañ dem Kigali vers le 20 pour am une semaine acclimatation jouer ñaari match balaa ñëw commencé compétition bi donc loolu moo. dem jël jël euh, waaw bii passé euh, bii passé 2021 quatrième passé njëloon mu doon euh, classement bu bu metti woon ci xol parce que neexul woon a accepté que Sénégal mën a dem jouer ji quatrième mais en 2015 di ko man première fois ma jël quatrième bi ma jógee Jeux africains avant l'Afrobasket à Yaoundé Jeux africains on a pris la quatrième place je me rappelle bi ñuy wàcc aéroport bi à la limite sax nit ñi dañu doon dañu doon xeeru dañu doon xeeru à l'époque on était à dix jours de l'Afrobasket ñu ñu remobiliser wu rek xam ne processus la donc quatrième place boobu ñu jëloon aux Jeux africains terewuñu quinze jours plus tard on était champion d'Afrique parce que dañ ci tirer enseignement man bu ma jógee comme ni ma jógee Yaoundé 2021 j'ai été très ouvert aux critiques ndax yëfu réew ku ko yor faw nit ñi wax la ci liñ ci xalaat li baax ak lu baaxul bu ñu mës a xalaat ne dañuy taxawlu dañuy déglu dañuy analyser dañuy seen bi nga xam ne mooy yoon pour jubbanti yàlla na moo xam liy xew mais loolu loolu ñu ñu critiqué loolu ñu ñu reproché moo indi ñu cop ñu so soppi doxin ci équipe féminine bi ah rappelé Fatou Dia rappelé Aya wuti euh, beneen meneuse wala. ñaari meneuse pour mën am taxawaay bu différent donc lenn yëngalu ñu dul yóbbu Sénégal ci place bi ko nit ñi yaakaaree maintenant place bi ko nit ñi yaakaaree du forcément jël champion d'Afrique moom lañu bëgg mais bu ñu ci bu ñu ci eggee ak jàmm dinañ évaluer seet li ñu def mu toll naka lañ ko doxalee ak far lañu yóbbu mais vraiment euh, fédération bi maa leen di féliciter ci organisation bi ñu teg en place mooy euh, président Maymouna bi ñu jox projet afro basket féminin te boobu ba léegi nag wax dëgg yàlla euh, chaque jour mu ngi ci teg ay jéego moom ak staffam parce que il a un staff dina magnifier nomination wu madame Bodiké manager parce que man bi ma duggee ci regroupement ba tey ba tey damaa teggeeku tous les aspects administratifs président Samba Gueye ak staffam ñu ngi gérer communication bi ñoom ñu ngi régler tous les problèmes administratifs euh, donc je pense que organisation boobu ñu def dafa law ba ci U25 yi euh, Madame la Présidente, euh, si je peux me permettre de le dire, Maïmouna Fall du Duc va piloter l'équipe U25. Si je me permets, parce que ce pas encore une décision officielle, mais je suis dans le secret des dieux. Et elle sera assistée par euh, chef Raoul Toupane, qui sera mon pendant, dans cette équipe. Et euh, le staff dirigé par Elaj Mamoudiam Diop, qui est avec moi à Yaoundé, qui est champion d'Afrique. Donc il connaît un peu na euh, mon humble avis comment mettre en place une équipe donc ci ci ci ci ci ci ba ngeen baal ma baal ma maa ngi def dérogation ci wàllu garçon yi aussi may rafetlu taxawaayu euh, manager Malay ak Makhtar Ndiaye conseil du président ñu ngi ñu ngi jàppale Ngagne Sagana ci ci euh, élargissement wu base yi parce que li gën a jafe c'est taxawal président bi avoir résultat léegi léegi et puis assurer le suba équipe bi. loolu moo tax it boo nga gisee li si góor ñi xale yu bari ci monde bi euh, ont été appelés ba nga xam ne tey euh, suba ginnaaw suba après deux mille vingt cinq vingt cinq bu ñoom góor gi demee yeneen xale nañu taxaw jël place bi en tout cas maa ngi rafet un peu euh, seen teewaay presse sénégalaise parce que yéene suñu relais entre li ñuy def ñun ak population yi ndax équipe nationale yi équipe bu Sénégal yi la di di di di di leen xamal ne taxawaay bu ngeen taxaw rek ñun faw dañ koy nangu ndax amuñu le monopole de la vérité euh, day am ay contestation day am critique day am ay euh, critique positive négative mais lépp dañ koy tënk ñun di seet ñu ngi koy jële pour avancer le Sénégal ndax lépp lu ñu wax du pour man Moustapha ndax su ma toogee sama kër kenn du ma du du pour manager euh, Madické du pour ma Madiène mais pour defar Sénégal la ci parce que dans l'union ci ci ci rafet njort yi ci yéene bu rafet mën nañoo arriver à defaat encore lu gën a baax pour Sénégal mu ci góor ñi di ci jigéen ñi man conviction boobu la am moo tax bu ngeen gisee équipe Sénégal yi góor jigéen xale yi ñoo ci ëpp léegi mag ñi mu ngi gën a muy wàññeeku de plus en plus et loolu mooy li ñuy yóbbu suba ci ndam. waaw projet wu Sira dossier am euh, xamaloon nañ ma ne monsieur le premier ministre. signé na ko ba pare mu ngi ci mu ngi ci table président yaakaar nañu ne euh, ci ay diir yu yàggul rek dinañ ko dinañ ko jot en tout cas bëgg nañ ko lool maintenant du moom rek ndax Sierra euh, dafa nekk en concurrence ak euh, Léana Timéra Léana Léana potentiel bu bu baax la pour ñun donc moo tax ma waxoon ne damay woo ñaar ñëpp bu ñu nee ba ci fin wa ñu tànn ki ñu ci gën a arrangé mais vraiment Sera ñun ñëpp nañ def attention ba ba bu mu bañ a foog ne moom day ñëw pour gañaloo ñu moom kenn mënuñu gañaloo ndax potentiel bu wóor la basket bu baax la mais mën nañoo dimbale wax dëgg yàlla ci euh, améliorer équipe bi qualité bi améliorer un peu énergie améliorer un peu apporter un plus mais sama wax moom tous les jours mooy Sera euh, liggéeyal mais bul gàddu équipe bi mën na ko gàddu donc on a dañu soxla. ah que ñëpp jàpp ci je pense que ñu ngi ci yoon bu baax bon euh, Yacine maa ngi koy gis chaque jour muy su su suñu suñu suñu defee cinq mu def dix ma ne ko Yacine Yacine dafa lànk boo toppee kii nii ba def loo waroon da ngay gaañu dafa lànk donc il est super motivé et vraiment j'apprécie son son état d'esprit comme comme les autres donc. waaw cinq matchs yooyu moo ñu gënal mais comme amuñu ko euh, tout de suite fédération dafa saisir ay pays envoyé ay ay euh, ay correspondance et que ñooñu ñoo tontu favorablement euh, ñooñu ñoo tontu amul amul ñu ku nangu ñëw Dakar donc ñooñu ñoo tontu foofu pour am ñaari match te defe naa ni Rwanda ak Égypte ay sparring partner yu baax lañu ndax booy dem ci compétition bul xeeb kenn xamal sa bopp mais bul xam kenn rek lu mu indi donc dañu ciy dem ak ak ak xel bu dal. ne opposition bu bu baax lay topp ñun waaw ñu ngi koy ñu ngi koy rafet lu baax la di ñaan yàlla yàlla sotti ko jàmm mise en route bi na commencé avec l'État le ministère des sports nous allons voir un peu les billets d'avion à envoyer parce que am na juróomi fii ñu war a yónnee bi avion kenn ku nekk France ak ñeenti États-Unis pour ñu ñëw dëgguma mi commencé normalement mi juillet bi ndax euh, ci li ma jàpp li ñu waa ministère wax fukki fan la ñu war a am regroupement donc euh, mu ngi boo seetee départ peut-être booru la le 26 peut-être ou 25 donc 10 jours avant wala ñu ci dugal ma donc euh, nañ ci jublu incha allah ci ci Afrique donc euh, euh, bu ngay xoolee liste bi ma joxee 14 yi xale yi ñoo ëpp mag ñi léegi donc xale yi ñu ngi jël pouvoir bi ñu ngi installé wu mais foog faw ñoom ay mag yu leen encadré ndax compétition africaine dafa dafa métti il faut de l'expérience mais foog ñoom ay tànk aussi loolu moo indi un peu équilibre bi ñu ut ci ci liste bi bon man inquiété wu ma parce que le le Sénégal. championnat bi man dama jàpp ne championnat bu baax la muy góor mu jigéen contrairement lu nu ñuy mën a xalaat man en tout cas bu ma gisee ne at bu nekk ñoo am ay joueuse ay xay ndaw yu jógee fii dem États-Unis wala Europe mu ne le talent ça veut am nañu entraîneur ñu ngi liggéey na koy rafetlu maintenant bu soit tànn jotee bu defar équipe nationale dañuy dem seeti ñi ñi mën ñi gën ñi gën a xarañ comme ñi mën ñooy dem toujours ñu ñu jëlee léegi Mathilde Mathilde Aïssa Diop dafa ne newoon France. ñu ñëw Sénégal pour jouer moom sax neen naa ko Mathilde maanaam jëluma la sax parce que performance yi nga def saison bi tu n'as pas exceptionnel mais dañoo gis ci moom potentiel boo xam ne yaakaar nañ ne bu ñu ko développé danañu mën a apporter beaucoup de de satisfaction dans le futur maintenant moom nag moo war a gagner place am ci douze yi ndax kenn tegalu ko plan loolu moo valable aussi pour Kouna ndaw li nga xam ne peut-être ay ay moroom la ñoo dem Europe moom mu toog Sénégal boo seetee liste bu ñu koy boole boo ko joxoon parce que na joué wul bu baax te équipe nationale moom loo def da ko war a mais bu mu commencé di di di joué bu baax mu tombeek euh, am benn place bu disponible ma woo ko ne ko kaay parce que temps yi yaa ngi jëlaat sa niveau et je pense que depuis quelques jours mu ngi ñuy valoir beaucoup de sañ donc championnat local bi. bu ngeen seetee am na ñeneen xale yoo xam ne mérité woon nañu te ñëw ci liste élargie bi nday waaj bu Jeanne d'Arc bu ngeen seetee Koumba euh, Niang bu Jeanne pour man bu ngeen seetee pour man d'autres y en a d'autres Ndoumbé Mbodj ASC Dakar am na ñeneen ñoo xam ne euh, meneuse Dakar Université bi kii Barka Barka Barka yi c'est une bonne chose boo seetee euh, Laurence Diédhiou mais Diédhiou c'est une joueuse qu'il faut suivre très près donc du du parce que jëruñu leen tey que local amul chose bu baax am na ñu baax ñoo xam ne suba suba dañu dugg ci équipe nationale bi incha allah mais nañ koy def ñu dëpp ci ci ci dal ndey Seydou bu Dieye bi ñu jël ci équipe bi 25 bi muy xale bu nekk jaraaf xale bu xarañ la ah, am na am na ñeneen bu moo diimee damay damay juum mais vraiment am nañu ay xale yu baax yoo xam ne bu ñu leen euh, tàggatee continuer ñu patient nag mën nañu am euh, lu baax donc ban niveau basket bi. inquiété wu ma trop aussi Samba Daali Fall ren euh, baal bu mu def si kooku fii la juddoo fii la màggee diggante Louga ak Dakar mu ngi nii am na contrat France Jean-Jacques Boissy am na Bamba am na loolu loolu mooy am nañ ay xale yu yu yu xarañ fii